laay laay la laa mi ngi noonu tarkindaa bi ñëw na Siteu ñëw na yalmin bi borom dëkk bi ñëw na xoolal ma moto yi indi cay dégg leen seen waay la ñoo ko moom seen slogan la ñoo ko moom xoolal mbooloo mi ñëw na fii ci DSTV moom Siteu war a jàkkaarloog la dëggeet numéro muy premier face to mu war a gisante ki nga xam ne mooy la dëggeet numéro waaw waaw moo fa amoon mais nag bii nag day wax tey mu delloo ko ko tey mu delloo ko ko Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 tarkindaa yaay noonu ñëw nañ tarkindaa yi ñëw nañ ami ko lakaay bu xool leen ay ndeysaan cey borom dëkk baa ngi ni yelmin bi Yelmin Yelmin baa ngi noonu ndeysaan mu ngi noonu police ñu ngi dàq gaay yi tey police yi caaxaanuñu de police am na lu ñu préparé ñii foowuñu xam nañ nag mënut a yomb ñii foowuñu de ndeysaan Siteu Lac de Guiers numéro 2 ñoom ñaar ñoo war a Père Max a ngi noonu Papay Tarkindaay mi ngi noonu moom moom Père Max Mbargaan policier yaa ngi dàq gaay Kalidou pusal policier yaa ngi dàq gaay policier yaa ngi dàq gaay ñu ngi dem benn par benn. du rakam. Siteu lu mu bokk ak Ousmane Sonko. laaj naa la ko mi am na lu mu bokk ak Ousmane Sonko. ànd kaa bayre bi saf na saap de. bayre bi na saap. na ma ci ñemal ah, kenn xamul lan la. lii mu sangoo moom la moom moom Siteu. bu jugee dëkk bi jug ma ne leen boobu yal min bi daa jóg. yal min bi jógee ngeen xam ne. yal min bi dañ ko bàyyi xel. Ami Collé xam nga li ma li ma jaaxal Siteu. bi mu ñëwee ca làmb yàggul. mais tey ci biir làmb. tey mënoo wax te doo ci boole Siteu. munoo wax te doo ko koo wax nga boole ko ci li ko may nag mooy jom ak njàmbaar ak fulla fayda xoolal xoolal kii Abdou Seck a ngi noonu ndeysaan en tout cas bëri na bëri na coow de te dara xewagul nag policier dañu leen a bar policier dañu leen a kar ci côté bi ni leen bu kenn egsi ndeysaan mi coow li bëri na wala Abdou Seck Abdou Est-ce que ça non non non oto bi arrière eh oto bi na arrière leen dox dox leen dox leen. ah. waaw bu leen di sës waay. waaw jàmm ngeen Dar red sa doy, dan dol, dol jam suway. Mene ni ekar wa tu. Sen kamera du ko ci sax. Sey man ko.

좋아하지 말고 man moo ma jaaxal doo jot ay ànd ak sama man dafa def la ko bokk ñu rek bokk ñu xale bi xale bi jaaxal na kii bu jógee jàmm gën jóg doon waar jóg ànd ak Abdou Seck ndeysaan loolu yàgg na ci làmb ndeysaan ànd ak Thiatou Fora moo teg yoo xam ne seex wala waa Abdou Seck Abdou Seck

dafa nangu dafa nangu bis bi xuma daa di gis ak dafa nangu dafa nangu dafa nangu est ce que nangul lak da ngeen waaye Fatma Dia oto bi xajam na Fatma Dia waaw waaw waaw waaw Fatma Dia oto bi xajam na Fatma Dia xorom ci la bokk yàqul dara ci la xorom ci la bokk de Abdou Seck ñëw na Abdou Seck ñëw na maa waaw waaw leen noonu gaa yaa ngi doon di wax ak moom. gaa yaa ngi doon di wax ak moom. dafa mel ni kii pour laal la. Fadam dafa mel ni ki nekk ci biir pour laal la. wallaay ndeysaan. ci tarkindaay. ndeysaan nga rifete Baye Fall bi. ndeysaan mi ngi réew. si taa ngi noonu. mi ngi nii di réew. gaynde gaa ngi noonu. mi ngi wax ak li nga xam ne. bilaay ndaanaan a ngi nii.

bëreeg Yaxya Jóob Yékini bëreeg Eumeu Sène bëreeg Boy Niang ko daanee romb nga ñëpp ba pare moom mu ne revanche day ah cam bàyyi ma loolu waaye tamit Reug le pro borom poste caara <laughs> yi ah mu ngi noonu Reug no ëmbee sa tey ji sa frère noo koy indee. noo indee yàlla ah. bi. mais yàlla bi moo ñëw wala mbër mi ndax chaque jour da ngeen daan teel nañ ko may tuuti rek. yàlla bi bee ñëw. yàlla bi bee ñëw. mais saan nee na yàlla bi bee ko ko. mais man liy dugg rek laa ko ñi muy ma leen ETDR établissement Touba Darou Rahman de entreprise bu mak bu yëngu ci BTP travaux de bâtiment génie civil manam lepp lu jëm ci walum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ci taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la nexé mën nañ la jox kaya amé am gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moy liko dalé ci fondation élevée tabax coulé ak raax ci second œuvre bi nak électricité ak plomberie ETDR amna ñu ay boutique les plus xamante ne électricité plomberie am les ko lépp bâtiments, jëm ci bois aluminium métallique charpentier les plus établissement bi di def maanaam ci gàttal ku ñëw ci ETDR boo ñu